askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def defaxu nag lu ay di jàmbat hasim maa ko wax ba mu neex ma maa ko wax yéenekaay bi nii bu la neexee nag nga ni ma waxoon waxeet Walf Grand Place ci xëtam bu njëkk moo ne ko dàng fàng di kàddu ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo ni Macky Sall de bu ko neexee nag mu ni maa waxoon waxeet yamul ci loolu référendum bee ko waral de waaye Moustapha Cissé Lo ba tey nee na téeméer boo jël ci réew mi mu di séeréer ak alpulaar juróom-ñeent fukk ya ña nga ci ginnaaw Macky Sall waaye dañ leer na ko ni que Macky Sall di dina dem deuxième tour mouvement suqali saalum fas yéene na ñëw daal di fal Macky Sall ca première tour la tribune yéen a kaay ñu ànd ak ñoom ñu ni Mbaye Ndiaye nag fi mu toll nii ma ngay dànkaafu képp ku nga xamante ni bokk nga ci cogg gay màngaan nag fas yéene jëm ci parti APR bile mu ni nag fi mu toll nii faw rek ñu xam kanay kan Mbaye Ndiaye yamu ca de yëkkati ay kaddu lenn waralu ko nag lu dul candidature Macky Sall 2017 bile ma ngay xamle ni nag ñi nekk ci ginnaaw ak ñi nga xamante ni ña ngay làqatu lépp dina leer ca lañ naan coow ci direct info mu ànd ak ñu nekk ci Mouhamed Boun Abdallah jonn kooku di élimaanu jëwri nii moom nag ma ngay fas ne daal di doxal ay jéego ci wàllu PSE bi yéenekaay bi ba tey ànd ak ñun ci ay dëmbooj ñu ni digganteem ak PDS ñu ni bu ca sëy amoon ñu ni cokkaas nab tàggoo le témoin yéenekaay indi ci firnde fësal ko ci xëtam bu njëkk mayel bët yéenekaay bi ay dëmbooj kàddu yam ca yëkkati yéenekaay tey di la témoin di xam le ay Aïda Mbodj de benn tànkam a ngi ci biti daanaka sàqi na PDS noonu la ko yéenekaay bi di dippee ni moom nag ma nga ca tànki Jules Ndéné Souleymane Ndéné Ndiaye mi fi nekkoon élimaanu jëwri nii ci jamonoy Abdoulaye Wade Pape Diop président assemblée nationale Habib ma du Seck ñoom nag yéenekaay bi di l'Observateur fësal ci xëtam bu njëkk ni Macky Sall njiitu réew mi fësee ne na leen nag daal di décorer ca palais de la république ni ki tey noonu ñu tabbiwaat ci yéenekaay bi nga xamante ni moo di la témoin mu ànd ak xamante ni bokkoon na ci parti démocratique sénégalais di Serigne Mbacké Ndiaye moom nag président CLP taxaw na temm ni bu ñu moywul nag mu jàppale kii di président Macky Sall yonekaay bi di l'observateur bu ñu ci dellu see ci xëtam bu njëkk moom nag ginnaaw procès Karim Wade bi nga xamante nii nag ak candidature am bi jur coow ci parti démocratique sénégalais Abdoulaye Daouda Diallo moom ma ngay àddu ci nguur gi naka la ñu daal di jëlee kaaraange matukaay yi nga xamante ni def nañ ko ginnaaw bi verdict bi daal di amee nag ci procès Karim Wade bile wax ci procès Karim wadd bi mooy tax nag ñu daal di jàll ci laas yéene bi ànd ak ñun ak Abdoulaye Balde moom nag yëkkati ay kàddu ni faw rek suñu justice bi maanaam këruk yoon gi bañ a jeng buñ ci jógee ci la ñuy tabbi nag ci yéene bi di la soleil moom mu fësal ci xëtam bu njëkk ci wàllu politique nee na ña nga xamante ni nag ñooy leaderu Benno Siggil Sénégal taxaw nañu nag amal ab séminaire jëmale ko nag ci wàllu PSE naka noonu budget 2015 bi Le Soleil yéenekaay bu ñu desandeek moom ba tey muy addu nag ci yeneen i kaddu yi nga xamante ni monseigneur Benjamin Ndiaye moo ko yëkkati ci GMG yi moom nag mi ngi dellu nag di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ñu amal éducation bu nga xamante ni dana mucc ayib Le Quotidien yenekaay bi ci xëtam bu njëkk la ni tàng fang ki nga xamante ni mooy Serigne Mbaye Thiam mu ni nag fi mu toll nii moom lu jëm ci wàllu njàng mi am na lu ko doy Libération yéenekaay ak àtte nee na nag fi mu toll nii DIC dalal na ko yéene kay bi ànd ak ñun di wax ba tey lu jëm ci wàllu financement koppar yi nga xamante ni dugg na ci campagne 2007 bu Sarkozy te ñu wax ni nag Kadhafi am na ca loxo ci wàllu koppar ba tey la ñuy desandi xëcc grand place teg mu daal di àddoog ñu nekk ci kàddu yi nga xamante ni Bara Sadi yëkkati na ko coowul 80 milliards yi nga xamante ni wax nañ ko ci port autonome bu Dakar Bara Sadi da yëkkati na ay kàddu nee na nag du lenn lu nga xamante ni mus na ni ko tëgg wëndeelu foofe noonu ca port autonome bu Dakar Sud Quotidien fësal ci xëtam bu njëkk njëkk 17 juin 2015 dippee ko passage bi nga xamante ni moom la ñuy woowee analogie jëm ci wàllu numérique yéenekaay bi addu ci lënt-lënt yi ci nekk ak li nga xamante ni nag mooy liy leer mayel bët yéenekaay bi di Sud Quotidien ci lañ jàll ci waa sport ñoom nag ñu daal di addu fësal nag seen xët bu njëkk diggante Sénégal ak Ghana làbbali nag ñi nga xamante ni ñooy Ghana ñaari bal ci benn stade yéenekaay bi dellu ca nag moom gën ko fësal ñu wane ni ndorteel gi neex na ca lañ naan coow nag ci suñu làmb yéenekaay bi ànd ak ci diggante Modou Lo ak B52 ñu ni fi mu toll nii nag kenn ku ci nekk yaa ngay daw saxaar ak la nga mën Modou nag ma ngay dellu di wax ki nga xamante ni moo di Bombardier le 25 juillet li nga xamante ni moo ko ñor du lenn lu dul couronne nee na tolluwaayu Bombardier jaaxaluma Bombardier nag ma ngay xamal ni kii di Modou duma ko song de waaye nag li di couronne bi moom fa séenéwu ma koo joxe suñu làmb ba tey diggante ki nga xamante ni moo di guy gi ak tafaatin mbay ñi ngi di entraîneur u tafaatin nag ma ngay xamle ni guy gi fi mu toll nii xoqatulu leen làmb de reenu ñàmbi la rekk de lii di comp lëf ci yenekaay jàngeen jëf